ay équipe bu ndakaaru bu ci mel ni Andi Star Dakar Plateau Talibou Dabo Pikine Géejawaay dem Tëngéej Thiès Mbuur Kaolack Ziguinchor Wakaam ci la bokk Université de Dakar ci la bokk Ndar Géej ci la bokk ci Andi Sport ak Kolda kon bokk ngeen xam ne championnat national la ñaareel bi dañ koy dox ñaari ñaari part suñu paree championnat régulier bi dañuy def troisième place dañuy def demi-finale après troisième place après finale suba nag troisième ci troisième place bi la muy Mbour contre Thiès ak Plateau contre Pikine loolu lu muy wund mooy ñaar ñi tam final juroomi at yi mujj yépp ñooy finalaat loolu nak mbirum sport la dafa melni rek Barça ak Real final bi nak Sadio Marie Ndiaye bi lay am suba ci 4 heures waaye li ñu bëgg rek moy yeen press bi su ngeen ci jappé mu gëna dox and sport ñaar fukki at ak juroom

wax ko seeni ñoñ ba pare am nu ngeen seetee final bi ak rendre compte